لم باسم من هو فوق الكل خار معلما انا لزام فتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار معلمنا الإسلام فتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار وهو المتم سوي الإسلام يوم هذا ممن به كان للإسلام زار والمتم سوي الإسلام يوم هذا ممن به كان للإسلام زار كون سائدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا ربي سل على المختار والنبي أن رداء له عود وتكرار سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنشها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات السياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه سوي الردوان والتمكين mbokki julli ji mbokki taalibe yi noo ngi nuyu baat bu tedd bi di taxiyatan min indillahi mubaarakan di ko tàmbale ci sëriñ bi di ko jëme ci mbokki taalibe yëpp muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo leen di ndokkeel di ndokkeel sëriñ bi ci waxtu wu tedd wii di yowmul jumuati fi aaxiri saahati muy waxtu wu sell waxtu wu tedd woo xam ni ñun daje biñ si am mooy daje xidmatul xadim di ko liggéeyal sëriñ tubaa di dajale addiya yu sell di taataan ci kàddu sëriñ bi di ko jariñoo ngir lo xamni ni daf ñuy defal aduna ak alakhirah ndax da bok ci li abjulit wara war a ngànnaayoo mooy li munir moy lamp bu leer nañi lamp bu leer nañi nak moy xam-xam xam-xam nak moy xam li nga war def rek fi nga jëmit nga xam na nga fay jëmee ak xam lay tax nga mëna a fa nga jëm lolu moy siraj munir lolu jangale won nako, ci ginaaw ci fan yi ñu wessu ñu wa ci téré bu tedd bi di xoqal bukaau ala sadatin amwatin tabkil aradi alaihim ka samawati mi téré bu ris téré bu am solo yaakaar ni luñ ci jikki won ci am na ay jeexit ci ñen ñi nga xamni ni nañ ko dégg nak ak diglu bokkuñu loo diglu mooy lo xam ne day jaar ci nopp bi jall lo dégg nak mom day des ci yow nga xamni jamono bu ne day am taras ci yow nga diko ko dund yoonu yalla nak moy lo xamni ni da ngay nango mi ngi mel ni wutkat bi rek kii wut te bu amee yàq tasaare bu ko teg ki nga xam ne bu wutee ba am la cay aajoom bu ko ci jëfee la ca des da koy denc ngir bu ëllëgee bu amee aajo mën koo jariñoo moo tax ki nga xam ne day wut yàlla nag li muy tudd yàlla lépp li muy xalaat ci yàlla wiitaat yi muy def yëpp leer ga cay am dana ko consommer ba du am dara lu ko yakal du wax moy yak lola du jëf moy yak lola koka ag fam jëm da koy daal yomb lol waye bu fekke bu ni tewé jota yu melni tuddu yalla yàlla ñu jël ci sëriñ bi ay kàddu yu njariñ yoo xam ni jariñ muy kàddu yu seer lo xam dang koy mëna tuddé al jawharun nafis ñi di ko firee ci firi mu gàtt mooy wurus bu gànjaru waaye anafis nag mooy loo xam ne amul njëg waaye boo fa jógee day mel ne lu taq ci mbubb moom boo yël mu daal di rot loola kon bu fekkoon ci wàllu koom-koom la doo bari le ndax sëriñ bi dafa bëgg ginnaaw jurit bi buñ dee wax ak taalibe jikkoo tax ak taalibe do fekk fenn fuñ ko bind ci lo xam da na ni mo yoonu dedet al murid mo xewon taalibe mo murid ku si ku jébbul way jikko ji rafet ni nak motax ñu tëddee taalibe jikko joju nak mom la ahlul haqiqat moy ahlut tasawuf di jikko wo ban mana am ngërëmal yalla di len yombu nga xam li wolof na ku wax feñ mba ku jëf feñ yar ba ca ñoom ak jikko ji tedd ja ci ñoom muñ gure yi ga ca ñoom ragal yàlla gi ci ñoom sunu sunu doxee mu feeñ sunu waxee dana ca feeñ sunu jëfee rek dana ca daal di feeñ loola ki ko am mooy ki ko dund ñu tàggat ko ci mu tërbiyee ci ruuxam tërbiyee ci xelam ak i xolam ak i cëram ba mel noonee boo gisee ki xam ba noppi te du jëf ak ki xam ba noppi di ko jëfe nag ñoom ñaar boo leen gisee day mel ni nit ki nga xam ne mi ngi dund ci environnement bu baax a baax a baax nga gis jëmm ja na yaram wa di naaye naayee nga xam ne kii bërëb bi mu nekk jariñ na ko waaye ki nga xam ne maa ngi cee bërëb boobee nag te foo ko gisee yërëm ko dangay gis ni kon bërëb mu nekk jëriñu ko waaye nag li ëpp solo ci dundal ak taalibe ci ruuxam ci ci jëmmam mooy dundal ruuxam ndax ki jaayante ni yoon yàlla moo ko neex jëm ci yàlla te am pas-pas amuk dogu jëm ca ñooñu Sëñ Tuubaa ngi wax ci xikma di ci tudd sëriñ bu baax mooy Cheikh Amadou Tidiane radiyallahu taala anhu di wax ni moom malaayika yi sax su ñu gisee murit bi dëgg di sukk ci aw ñam di tibb di lekk sax dañuy jooy ndax yërëm ko ndax fa mu war a jëm ci yàlla sori na sori goo xam ni walla jafe naa dem jafe dem goo xam ni lekk da koy diisal sàkka nelaw yu bari sàkka gaaram place yu amul njariñ sàkka dugg ci ay jafe-jafe yoo xam ne day tilima ruuxam wala mu diisal aw wayaasam moo tax mu ni تبكي على المريد وقد روي أن ملائك الجليل تبكي على المريد إن كان أقول لرحمة عليه فانصر ساك في تالف في عوارف العوارف المعارف xam ni malaayka yi waxtu boo xam ne murit bi dëgg te war a jëm ci yàlla bu tibbee di lekk rek dañuy xam conséquences yi ñam bi di def ci yaram bi bu biir ba feesee rek nelaw daal di daal di ñëw te lu bari day tardé ci moom ki xam dañ ko jox rendez-vous ni ko ba accès bërëb sangam ci waxtu sangam rek am cadeau bu reuy waye mu am lu ko empêche ba ta ak ta départ koko day perte la mu waroon am yoonu gaay yu bax yooyu yi nga xamni ni moy jaar wayo ta waqa diko di ko dafa bok ci melo yi nga xamni nak seen bi tuddoon na ko ci téré bi gaa yu baax yooyu suñ moor boo ko يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأن لم لا يليق بالكرامات ñu ñi jaar ci yoonu ba àgg am cër ci seen borom nga xam ne am nañ shaayir waaye am nañ baatin foo leen fekk taalibe yi am nañ lu ñu war a ci ñoom ndax fees gi ñuy fees seen dënd bi lépp daanaka boo set seen dënd da yaatu ndax xikma yi si nekk ijaaba ji ñuy am xam-xam ba ñuy am ragal yàlla ga ñuy am njub ga ñuy am waaye foo leen fekk ñoom ci boppam dañuy jàpp ne ñoo gën a yées ci mbindeef yàlla ndax woyof ndax yàlla ku la ko gën a xam gën la ko ragal waaye ku la gën a am yàlla gën laa woyof koo dégg ñu ne diw daa rëy wala daa diis rek boo ko giñee di nit yàlla doonu ko waaye ku ni nit yàlla dëgg te muy dëgg soo ko fekk day woyof te ñoom yaraw na anfusuhum dañuy gis ni ñoom ci seen bopp doonal wara ñoo gën a yées si mbindéef mi nga xam ne benn nit yàlla mi ngi dox ànd ak i di dox ci ab àll ba ñu gis lu mel ne ñaari deewunde maanaam ñaari siyaan yu leen seq fii bari ndox fii bari ndox mu am yoonu sew góor yàlla gi jaar ci taalibe yi ci ginnaaw ñu dem ba yàgg ñu dajee ak kalbu kal mooy ab dawkat mooy ab bawkat di jooykatu guddi kal bi di ñëw ci yoon wi góor yàlla gi di ñëw ci yoon wi ñu daje ñoom ñëpp góor yàlla gi de daan daas wàcc wàcc yoon wi dugg ci ndox mi yéeram yëpp taq taalibe yi daal di wàcc kal bi daal di jàll dem ban demee àgg taalibe ni ko ah ñun day def nga lu ñu jaaxal lool ndax yow ni nga baaxe ak ni nga selle ak ni nga mel ak col gi nga sol ki nga xam ne ab kal bu rek la tax laa wàcc ndox mi ba sa yére yi tax laa wàcc yoon ba sa yére taq nii mu ne damaa xam ne li ma am ci bàkkaar xam ma yàlla dina ma ko jégalam de ko jégalam te wóor na ma ne kal bi amul bàkkaar ginnaaw maa gën a dis nag te am na ay bàkkaar kon moom laa war a wan yoon mu jàll man mi nga xam ne am na ay bàkkaar ma aw ci yoon te kooka bari na ñu koy yaakaar tax ñu di ko tudd yàlla di sàkku ci moom yàlla kooku waroon naa yëg boppam waaye kooka gis na ne a yées ci te jàpp na ne sax benn teraanga ji ni teral doomu aadama yeyewuñ ko ñoom wa annahum lam yaliqu bil karamati njort na ne ñoom sax yellewuñ ci joxe leen ñaari loxo sàkkaa di fon seeni loxo sàkkaa nag di leen teg fenn fi kon nag ku dib taalibe te àggagoo ci seeni cër war ngay xëcc sa bopp di ko fal bu baax a baax a baax ginnaaw gaa ya àgg ci waay ba ñoom ñooy woyefal seeni jëm ba jàpp ne ñoo gën a yées ci mbindeefi yàlla yi sàkkaa yow mi sàkku te àggagoo fa nga jëm kon sëñ Mar wa annahum wa afsaxut bu saaxi kulimo wa annahum lam yaliqo bil ijabaati bokk na ci seeni jikko ñoom foo leen fekk xam-xam ba ci ñoom ragal yàlla ja ak dëgg ga ak dogu ga ci ñoom ak sell biir ga ci ñoom sax da leen di wan seen doye di ci jamono bu nekk ñoom dañuy gis ni comme ay mbindeef lañ rek li wolof naa nangam ak weeru kooro yem bu jant so jubu weesagul ñoom njort na ni saay saay say jëf lu ràññe sax ci saay saay ñoom ñoo leen gën a saay saay njort ñoom ñoo gën a saay saay saay saay yi nga xam ne sax ay sàcc lañu wala ay defkati ñaawtiif lañu ñoom ñii di ay nit yàlla te àgg ci yàlla rek njort na ne ñoo gën a saay saay saay saay yooyu yëpp nag ba tax na ñoom ginnaaw njort na ne ñoo gën a saay saay képp kuy saay saay ñi ngi njort na ñoom yëlla woon sax di yëkkati seen loxo di ñaan naa allahuma yàlla di leen nangul kon nag képp koo xam ne yaa ngi doon taale bi di sàkku ijaaba bu teg sa bopp fenn bul xëy xëy ni nangam na ñaan rek mu xëy am nga ne àgg naa ba xëy xëy rek firi ko defee ni yaa gaa yi wala yaa gaa yi xoola ca gaa yi jiitu te àgg ci yàlla rek ñoom xam nañ ni seen bëti xol ubbi ko na bay jandoog seen borom ci waxtu nekk ndax sun borom laa tudrikuhu al absaara wa huwa yudriku al absaar wa huwa latif al xabiir suñ bët yii mënu koo gis jëhëran waaye bëti xol yi bu yeewoo nag dana ko gis gaa yi nga xam ne àgg nañ foofe ñoom ñoo wàññi ko defe ni saay-saay si bon ban di leen interdit wala ñu tëral ay luwaay di leen tëj ci kaso yi ñoom jàpp na ne ñoo gën a saay-saay ñoo ñëwee ñoom ña nga xam ne dañ leen di sukk di leen ràmm di leen taalale loxo sax jàpp na ni yées nañ yées goo xam ni lam yali xaw yelloowunu bil ijaabaati ci am ay ijaaba di ñaan yàlla di leen wuyu kon ñooñu war nañoo rees ñoom bu baax a baax dana war ab taal bi di woyof bokk na seen jikko min ha tala sumi sabru nafsin lil ilahi ala min ha tala sumi sabru lil ilahi bokk na ci seen melo bokk ci seeni jikko talaasumu sabrin taqoo ak muñ taqoo ak muñ nag muñ amul fu mu jeexe léeg-léeg nag ci dayari doomu aadama diw nii muñ am na fu mu yem waaye muñ nga yàllay wax ni inna laa ma asaabirin maa ngi ànd ñoom ginaaw yàlla amul fu mu yem yàlla du ànd ak lu am fu mu yem laa naka yàlla ma asaabirin mi nga ànd ak muñ kon muñ wërata am fu mu ndax suñ borom moom amu mu kon du ànd lu am fu mu yem ëpp doole ci xeeti garaat yi nga xam ni ki jëm ci yàlla war na koo ràmboo muñ bànneexu àdduna muñ ak mooy yàlla ba doo ko def xéewal ba la ganasee nga muñ ba doo ca beew muñ coonab jaamu yàlla bi waaye lépp loo xam ne day bakkan la ak yu mel noonu nga mën koo muñ ñoom daa bokk ci taqoog muñ jamono bu nekk lun muñ ala jawri usaati jàng jëm ci ak mooy yàlla dan koo dan koo muñ lil illaahi ngir seen borom muñun ko ngir diw gis na ma wala bu ma diw gisee dana ma jàppe nangam wala diw bu déggee ne def naa nangam dana ma ci xeeb déedéet ñoom dan daa muñ bañ a jàng jëm ci ak mooy yàlla lil illaahi ngir seen borom mboolem xeeti mooy yàlla yëpp dañ ko daa muñ rawatina ak wal musibaat ak musiba yi dañ ko damuñ kaano isaana nawi dararun taabo ilallahi min kusril xatiyaati ñoom day la nekkoon mooy saa yoo xam ne li ñuy wax jafe-jafe àdduna muy ay lor muy ay feebar muy aw ñàkk muy ay tiis muy ay jafe-jafe muy ay naqar yu bare bare bari su xëy xëy ni dellu seen kaw duñ ko gis ko giñ kenn dañuy jàpp ni seen mbon rek wala seen ji ci ñaam moo tax yàlla nattoo leen loolu kaanu isaa naa boobu nekkoon na ñoo xam ni su leen musaan jot ci seen walla ñoom moo xam ci seen bopp moo xam ci seen njaboot la moo xam ci seen alal bu leen musaan a lor jot ay lor dara doon ay lor lor gi dal leen moo xam métti bu mën a doon la moo xam tawat yu mën a doon la wala njàqare wala situation bu mën a doon lu ñuy def taabo ilallahi danaa ah bàkkaar yi ma def de moo tax yàlla teg ma lii wóor na ma ne day nelaw yu bari yi may def rek moo tax yàlla nattoo ma lii wala xalaat yu bon yi may xalaat moo tax yàlla nattoo ma lii kon naa tub dellu ci yàlla wala jëf ji bon ji may jëf rek moo tax yàlla nattoo ma lii ndax xasanaatul ab sayyiaatul muqarrabiin xasanaatul abraar am na gaa yoo xam fan àgg ci yàlla rek ñoom am na gaa yu sell yoo xam ne àggun fan àgg. ñële àgg ci yàlla seeni ñaawteef ñii digg doomu ay rafet rafet la ci ñoom boo gisee ku mel ne Cheikhul di wax naa sa kawtu umóor yi maa ngi jàmbat samay mbir wasan bi ansim ak sama bàkkaar bu rëy bi sama bàkkaar bu mag bi maa ngi koy jàmbat lool koo jàmbat li rabbin xafoorin li rabbin xadiiril xafoor rañe bàkkaar yooyu mooy lan mooy fanu jaamu yàlla ba gis seen borom ca màggam ga ak tedd ga fa yàlla feeñoo ci dayoo boobee ñu gis ko fa di ko fa jaamoo di ko fa jaamoo ba seen roo gën a yokkaat seen pas-pas gën a yokkaat ñu xool xemme ko waat gisaat yàlla feneen fi ko gën a kawe ñu ne ndekkee ëppoon na fan ko tegoon mooy rabbul isité amaa yasifoona ñu tuub nag fan tegoon yàlla de set bu di ko tuub tuub gu tar nag waaye ñun ñii wala ñoom ña sa des ña nga xam ne xaw nañu àgg foofa ñoom di seen ñële ñoom dañuy tudd yàlla di bànneexu ci leer gan gise yàlla te fekk am na ñu ko weesu te fekk ñoom fekk fan ko gaa yi njëkkoon a gis ay ñaawteef la ci ñoom gaa yi ak àggoon nag ñoom ay xasanaat ay rafet rafet la ci ñoom waaye ñoom ñii nag lu leen mën a dar rek dunne ab liggéey la dunne dunne cat la dunne rab la dunne diwóoma liggéey dunne nangam déedéet taabu ilallahi dañuy taxaw astaxfirullah rek jamono bu ne ña ngay tuubal dellu yàlla dellu jëm ci yàlla ndax naqar wi len dar ak lor ji xam ni sen bakkar rek len ko def motax tabu taabo ilallahi min kusril khati'ati ngir bari ay ñawteef mo len yóbbu len dal wa min manaqibi ridwanu wa min manaqibi ridwanu alay alayhimo dara usnun kullasati amna ñu ay manaqib muy ay daraja yu kawe kawe kawe daraja yi moy lan lu sen daraja ndax alal ju jeex la dedet ndax aw tur wu rëy la déedéet ndax ak si ak si ak ak pan la ci àdduna déedéet seen manaaxib mooy ridwaan rabbi ngërëma seen borom yàlla moo ne leen jërëjëf suñ borom ci boppam moo ne leen jërëjëf waaye nag ridwaanu rabbihim alimu dahra dani ngërëmul yàlla yàlla nekk ci ñoom waaye seen manaaxib yooyee mooy xos noonu dañuy takkoo njàqare ndax kuy dund ci àdduna waroo ree ba loolu la rasulullah daa wax ni cey su ngeen xamoon li ma xam da ngeen di jooy lu bare bare tey reetaan lu néew a néew te moom la yàlla bind ni ko inna fatahnaa laka fathan mubinan li yaxfira laka lahu ma taqadama min sanbika wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka llahu nasran xasisa loolu daraja mënu ko weesu suñu borom wax ko loola te teewul jamono bu nekk day takko njaqare mom rasulullah mom sayyidina ali da wax ni giñ na ni suma doxon yalla ne ma duggal aljana mu jël sama tànk ndeyjoor teg ko fi ci bir aljana ben tank bi dugagul munuma wat ni muccina muccina ci muccina ragal yalla fofu lay am sun borom ne won musa la ta'munu makri hatta tara nafsaka fil jannati bul wóolu sama pexé mukk ci kaw sof fek dama ba dugg aljana ba gi sa mi ngi ci bir aljana lu ne ci wax borom xam-xam yi dëgg dëgg nii suñ borom mën na la ne danaa la yóbbu àjjana ba noppi yóbbu safara te waxam du deñ kooku mat naa ragal moo tax ñu ne ñoom bokk na seen manaqib xusnun ku la saati seconde bu nekk minute bu nekk waxtu wu ne ñi nga takkoo njàqare di tiit seen borom ndax amaana yàlla mën na leen boole salbu leen musiba la womi umi si jaay am الخار مالكهم وتقوى سلما تتري عفاتي ومن سجاياهم وخوف النفاق ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفدوات ما للنهايات ndek jambar rek wala meuna jëf jëf ju rañ wala meuna daw wala dara meuna def ba ñak ñi diw jambar la ñoom seenu njàmbaar ñoom wa min sajaayaahum bokk na seeni njàmbaar seeni jikko xaw fa nifaaxee ragal naa feq loolu la wax rek boo ko seetee ba ci seen xol loola mooy mooy dëgg ci ñoom duñ la wax mukk ci seen làmmiñ lu nekk ci seen xol ndax loolu ba naafeq lay doon ragal gan ragal naafeq mooy seen jikko mooy seenu njàmbaar badaa waaye nag xawful fudaati ngir ragal gàcc ragal nan lu la wax tey bu ëllëgee ñu seet ne diw da la waxoon amul loolu dañ koy ragal ba lu ñu ko wax bala ñu ko wax dañ koy seet ba xam ne loolu dëgg la buñ koy jëfit foo leen mën a fekk da ngay xam ne lu baax rek la ñuy def ndax ragal ñu bis feeñ ci ëllëg ña leen yaakaaroon di leen topp ragal nañ ba ëllëgee ñu nekk ci yeneen bërëb yu gën a suufee yu bokkut ak fan leen tegoon a moo tax bokk na seen njàmbaar xaw fu ni faaxi daa ragal na feq lu tax muy xaw ful fu ngir ragal gàcce kañ lañ ko ragal fii awli xiyaamat ci ci tidaange bis penci foofu la gaa yi di ragal moo ba moo tax ñu yore jikko yi min ha tawaddu on lil xaari malikim wasit ku waasuduma tatiri afaat bokk na seen jikko ba tey at tawaddu di toroxlu di suufeel seen bopp di woyofal seen bopp ba foo leen gis sax da ngay defeen dara ndax man tawaadaa lillah rafaahu llah képp ko woyofal boppam di toroxlu ngir yàlla rek yàlla moo koy yëkkati ñoom dañ daa toroxlu lil qaari ngir notaakoon bi ki nga xam ne mooy seen borom waaye wasidqu ak dëggu ci seen wax ak seen jëf seen wéet ak seen wéet li ko dañuy dëggu waaye wa suhd ak dëddu àdduna maa tathiiri afaat ànd ak laab laabal seen bopp ci gàkk-gàkk yi alal du leen gàkkal bànneex du dara mën leena gakkal lepp lu leen mën a gàkkal dañ koy la bam set wicc ngir mën a ak seen borom min hal tijaw ila rahman min hal tijaw ila rahman fi abadin jalban wa daf'an bin isika bokku ne seen jiko ñom wiru al tijaw ila rahman il tijaw ila rahman wiru keng wiru keng bu dëgër keng seen borom lan defan ci faw ci lépp luñ bëgg ñoddi mu ñew ci yalla lan ko yakkar dafa noo jël ban lépp lu mu bëgg a mu dem ci yàlla lan koy lan lan lan koy yaakaar dañ koy def nag bi inhaay sikaayaati comme jamono bi neexul jamono bi daa naqare ci duñ jàmba dara ñoom lu mën a xew tamu naqari nu bëggee jàll ci seen borom la ñuy delluwaat lu mën a xew ci seen biir tamu naqari leen buñ bëggee daf ci seen borom la ñuy delloo waaye duñ dem di ko kalaamee kenn yaakaaruñ ci buur yaakaaruñ ci ndawal buur yaakaaruñ ci ak fal yaakaaruñ ci kenn ku leen ci xet bi inha isikayat ci terewuk njambat du njambat dara lepp seen borom la alal muslim matam walil mudaitana um da wa inkaril maqamat bo len gisee no len di xamé ba xamni gaay yi ma don set ak ñi may wax ñep ni len mel mu ne so bëggee xamni ñom ni len mel al ilmu xam-xam siimatu moy seen mandarga ñom du seen mandarga moy jesner du seen mandarga moy lu wex wala lu ñul lu seen mandarga mooy takki weer wala dara déedéet seen mandarga mooy xam-xam suñu waxee rek da nga xam ne lii ay sangam lañ ko teg wala addis su nu jëfee rek nga xam ne lii ci sun na lañ ko teg wala ci farata waaye wal xel mu day na lahum lawet domm mooy seen jikko doo leen fekk ñuy werante wala ñuy xët-xët dañuy lawet domm lawet day dana hum mooy seen jikko ba noppi nag duuna daxaawee duñ woote dara duñ jéem a woote maay nangam maay xutbu wala maay xawsu wala maay wàllu yu sàngam duñ woote dara ci maqaam te lu waay di woote it ñu bàyyi la ca duñ duñ la linkaar wa inkaaril maqaamat duñ weddi maqaamam kenn loolu na wax ñu diw nee na woote na maqaam sàngam ñu na a ah, yàlla man na mën na lu ëpp loola dëgg la waaye ñoom duñ woote jàpp nañ rek wéeru seen borom mooy yoon wi gën a gaaw ci ñoom kon ñoom ay tariquma tariqatul Mustafa tariqatul Mustafa xayrul bariyaati. sëñ bi nag sëñ Tuubaa. jikkoy gaa yu baax yëpp ko jàmbatee. taxoo gën taxoo ko muñ. ak dellu gi ci borom ci waxtu wu lor dabe. ak taxoo gu ñuy taxoo njàqare ci xam gun xam sañ-sañu seen borom. ak seenu njàmbaar ragal gën ragal naa ngir ragal gàcce ak yow ma xiyam. ak toroxla gi ñuy toroxla ci seen borom ak dëggu gi ak ak laab gi ñuy laab ci bépp gàkk ak wéeru gën a wéeru ci seen borom ci li ñuy dal jalbu ak ci lépp lu ñuy def ak seen màndarga di xam-xam seen lewet di seen jikko te duñ woote benn maqaama suñ bi da ko lim ba yàgg mu ne ah daal di yëkkat jooy aahin jooy naa Seexul Xadim looy jooy lu ko jaral jooy lu fi jar jooy yi ndax daa am loo bëgg ci àdduna loo mën daa mu ne déedéet ndax doo am daa am loo ñàkk ci àdduna loo waroon a loo am mu ne déedéet ndax daa am lu la të loo bëgg mu jot mu ne déedéet ahin jooy naa jooy yi métti lu tax a jooy mu ne ala faq di ngir ñàkk gi ma ñàkk sang yi ñàkk gi ma leen ñàkk fekk ci jamono ngir ñu tër bii ma ci seen jikko yooyu ma am ko ñàkk gi ma leen ñàkk gis te gisatuma ñu mel ni ñoom ñoo ñooña ñoo waral sama jooy yu métti yi ndax ñoom sang yooyu ñoo ñeen mu ne tariqatum seenu yoon de bu leen bëggee xam طريقة المصطفى موين رسول الله فرسول الله جار تجيكم جبايا لنك وإنك لعلى كوي نيب تلو كوي مم سوتنا أسمان لو كوي لب سوت كوي نغا كل خن أسيم تي أي جيكو يمغ وكل كل خن أسند كل خن أسيم تي أي جيكو يري يمغ تلا رسول الله كوي نيب غاي باخ يو طريقة مشينا يو طريقة المصطفى كوي مصطفى خير البريات لول لي لي مشي جيكي mu dem sara alay ma tasni mursiluhu bil ali wasabi man faasu bi jannaati xéewal ak mucc yàlla nekk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sala alay bi tasnim ba ayshu aska salaam bi an nukfa xororaati sala alay ma taslimi xaaliqum bil ali wasabi man asobat xatiyaati sala alay ma taslimi malikuhu aska salaatin bi an nahwi alfutuhaati sala alay ma taslimi rasixu bil ali wasabi man daanu bitahaati sala alay ma taslimi mukrimuhu aska salaatin bi an nahwi alkaraamaati صلى عليه بتسليم مصوده بالآل وسلم والنال بالعنايات صلى عليه بتسليم مصرفه أسكى صلاة بها نحو الكسوفات صلى وسلم من في الجهر قدموا عليه بالآل تحداد القليقات صلى عليه ما تسليم رافعه أسكى صلاة بها نحو ارتفاعات آه على فقد سادات التي دار جويات دار جدي وياك مجويات آه جوينا من سنجبال لوجه على فقد ساداتي تي لوخ yaa uma takkalim ci boppam ñàkk gi ma ñàkk sama sang yii mëntuma leen a gis ana ñooñu mu ne alla sina ma daw woy nañu kon ñàkk gi nga leen ñakk gis rek moo tax nga jooy mu ne déedéet bi maa ma daw ak lanu wëyaale min saqiratin ci ay ndaxañtéef ay denc ay bibiyat ak xam-xam ak i xikma xajibaat yu yéem yan yóbbaale loola laay jooy ndax am am loolu jafe jafe na على المقدم في قدوتي قدوتهم صلاة راد دعاهم للمراقات على أبي بن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاهم كل غمات على المصطفى يوم الأسر في الكرماء صلاة صاف صفاء من دسيسات على الذي فضله لا ينتهي أبدا صلاة هاد أداهم الاستقامة على المكرم خير الخلق كل إمو صلاة مخن جزاء خير خيرات عليه أبقي صلاة بسلام معا في الآله والصحب طرا كل وقت على الصحابة والسائرات كل إمو ridwaan rabbil araadi wasamaat kon téere bi la suñ bëggoon daa bëgg rek ñu jàngataat si ñun taalibe yi moo taxan mun leen téere bi doy nab sëriñ ndax boo jàngatee jikko yi te jikko woo ko rek soo gisuloon ku la defar te am jom te am ak dogu war ngaa mën dem kon yal na defal barkib téere bi yal doon li ci sëñ bi li yéene lépp yan yan nañ ko doon bu boobaa ak defaroon day jàpp ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu